fanweer ak benn Firawna
salaamaaleykum mbokk yi nuy déglu nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub tey ji dañuy wéy ci téereb gàddaay ga ci mbirum yonent yàlla Muusa ak bànni Israël ca Misra. ci njàng yi weesu gisoon nanu ni Firawna buuru Misra fitnaale bànni Israël ba def leen ay jaamam. waaye yàlla amoon na pexe ngir wëlbati lu bon li Firawna doon def yàlla fasoon na yéena jëfandikoo kenn ku bokkoon ci doomi Israël ngir goreel bànni Israël ci loxoy Firawna nit kooku moo doon Musa jàngoon nanu ne Musa ku yeewu la woon ci xam-xamu waa Misra bépp di jàmbaar ci wax ak jëf bi Musa amee ñeent fukki at doon na fexe goreel ay mbokkam ci pexey boppam wante pexey Musa juruñu woon dara lu dul ay jafe-jafe ba taxoon Musa wara daw Firawna sax nëbbu ji ca màndiŋ ma Musa waroon na jàng ne moom ci boppam nit kese la te amul jenn doole ngir goreel bànni Israël su fekkee ne Yàlla mayu ko ko noonu gisoon nanu ni Musa dëkke woon ca màndiŋ ma diirub ñeent fukki at di sàmm géttu goroom benn bés nag bi musa amee lu toll ci juróom ñetti fukki at yàlla feeñu ko ci tund wu ñuy wax sinayi ci tàkku tàkku safara ci biir as ngarab ngarab sa di tàkk waaye lakkul bi ko musa gisee mu daldi waaru bi mu jegesee ngir niir ko mu dégg baatu yàlla ne ko man maay sa yàllay maam di yàllay ibrahima isaaxa ak yankoba musa daldi tiit bay lox te ñemeetu la xool noonu yàlla ne ko sumil say dàll ndaxte béréb bi nga taxaw béréb bu tedd la gis naa bu baax fitnay sama xeet ca misira te dégg naa seeni tawat kon wàcc naa ngir musal leen léegi nag ñëwal dinaa la yebal ca misira léegi nag nanu jëm kanam ba gis ni yàlla jeexale waxam ak musa te yebal ko ca buuru misira ci saar ñett gisoon nanu ni yàlla dige woon ànd ak Musa may ko xel ak kàttan fa kanam Firawna ak waa Misra waaye léegi ci saar ñeent dinanu gis ne Musa ragaloon na fa dem mbind mi nee na gannaaw loolu Musa tontu yàlla ne waaye su fekkee ne bànni Israël gëmuñu ma te dégluwuñu ma naan aji sax ji feeñu wula kon nu may def aji sax ji ne ko loo yor mu ne ko aw yet aji sax ji ne ko sànni ko ci suuf mu sànni ko ci suuf yat wa soppeeku jaan mu sànni wëqët daw aji sax ji ne ko tàllalal sa loxo te jàppe ko ci genn gi musa tàllal loxoom ne nuus jaan ji mu dellu nekkaat aw yet aji sax ji ne ko loolu ngir ñu gëm ne aji sax ji moo la feeñu man mi seen yàllay maam di yàllay ibrahima ak yàllay isaaxa ak yàllay yanqoba musa ne aji sax ji waaye borom bi duma jàmbaari wax du démb du tey te it du ba nga tàmbalee wax ak sa surga ba léegi dama mësa tële wax aji sax ji ne ko kan moo sàkkal nit gémmiñ kan mooy luwal mbaa di tëxal di gisal mbaa di gumbaal xanaa du man aji sax ji léegi nag demal dina ànd ak sa kàddu jàngal la li ngay wax waaye musa ne borom bi jéggal ma te yónni keneen ku la soob noonu aji sax ji daldi mere musa ne ko ana sa mag aarona mi askanoo ci lewi xam naa ne ku mën a wax la ma nga lay gatandu sax te bu la gisee xolam dina sedd dinga wax ak moom tegtal ko kàddu yi mu war a wax man dina ànd ak seeni kàddu yéen ñaar ñépp jàngal leen li ngeen di def yet wi nag jël ko ci ngay defe firnde yi noonu musa dem ca gorom yetro ne ko dama lay tàggu ngir dellu misira seeti samay mbokk ba xam ñu ngiy dund ba tey yetro ne ko demal ak jàmm booba nag la aji sax ji wax musa ci madiyan ne ko dellul misra ndaxte ñi doon wut sa bakkan ñépp dee nañu gannaaw loolu musa jël jabaram ak i doomam waral leen ci mbaam sëf daldi aw yoonu misra musa daldi jël ci loxoom yetu yàlla wa aji sax ji ne ko boo delloo misra nag taxawal temm ci def ci kanamu firawna kéemaan yépp yi ma la may kàttanu amal leen kon nag nanga ne firawna aji sax ji nee na israel mooy sama taaw nee naa la bàyyil sama doom mu jaamu ma loolu fekk na aji sax ji ne aarona demal ca màndig ma gàttandu ji musa noonu aarona nag dem fekk ko ca tund yàlla wa foon ko musa xamal arona wax ji ko aji sax ji yóbbante ak firnde yi mu digle yépp mu def ko ba ñu agsee misra musa ak arona dajale magi bànni israel yépp arona daldi jottali kàddu yi aji sax ji waxoon musa ba noppi amal firnde yi ci kanamu mbooloo ma bi loolu amee nag mbooloo ma gëm te bañu xamee ne aji sax ji nemmeeku na bànni israel te gis seen naqar ñuy sujjoot tey màggal yàlla sar juróom gannaaw loolu musa ak aarona dem nañu ca firawna ne ko aji sax ji yàlla yi israel nee na bàyyil sama mbooloo mu màggal ma ca mànding ma firawna tontu ne kan mooy aji sax ji ba may dégg ay waxam di bàyyi israel xamuma aji sax ji te it duma bàyyi israel mu dem nanu taxaw fi tuuti gis nanu ni yàlla waxe woon ak firawna jaare la ko ci gémmiñuk musa ak arona ndax firawna gëmoon na kàddug yàlla déedéet ndax dégg ngeen ni mu tontoo woon musa ak arona mu ne leen kan mooy aji sax ji ba may dégg ay waxam di bàyyi israel xamuma aji sax ji te it duma bàyyi israel mu dem firawna xamul woon yàlla aji sax ji firawna ak waa misra yépp amoon nañu diine wante xamuñu woon yàlla seen diina maam rekk lañu daan faale faale wuñu yàlla aji dund ju dëggu ji di yàllay ibrahima isaaxa ak yanqoma firawna ak waa misra wóolu woon nañu seeni xërëm ak seeni gàllaaj ak seeni sëriñ ak seeni aada wante wóoluwuñu woon yàlla aji sax ji ak kàddoom gu wóor gi noonu nu jàng ci saar juróom benn ne aji sax ji ne musa léegi nag dinga gis ni may def firawna sama ndeyjoor dina tax ba mu bàyyi leen ñu dem dina tax sax ba mu dàq leen ci réew mi noonu yàlla dellu ne musa man maay aji sax ji feeñu naa ibrahima ak isaaxa ak yanqooba ci turu yàlla aji kàttan ji waaye xamaluma leen sama bopp ci turu aji sax ji noonu fas naa ak ñoom sama kóllëre ngir jox leen réewum kanaan réew mi ñu dëkkoon nekk fa ni ay doxandem gannaaw ga dégg naa binnik bànni israel mi waa misra def ay jaam te fàttaliku naa sama kóllëre kon nanga ne bànni israel man maay aji sax ji dinaa leen yenni ci yen bi leen waa misra yen tàggale leen ak njaam gi ñu leen teg dinaa tàllal sama ndeyjoor jot leen jaare ko ci àtte yu mag dinaa leen def sama mbooloo te nekk seen yàlla dingeen xam ne maay aji sax ji seen yàlla ji leen di yenni ci yen bi leen waa misra teg dinaa leen yóbbu ci réew mi ma dikk ibrahima ak isaaxa ak yankoba dinaa leen ko jébbal muy seen moomeel man maay aji sax ji firawna du leen déglu noonu dinaa wéer sama loxo ci misra àtte ko àtte yu mag ba noppi génne sama mbooloo bànni israel réewu misra ci ay sàppe noonu waa misra dinañu xam ne maay aji sax ji bu ma wéeree sama loxo ci seen kaw ba génne bànni israel ci seen biir musa ak aarona dégg ndigal def ni leen ko aji sax ji sante woon booba fekk na musa am juróom ñett fukki at aarona am juróom ñett fukki at ak ñett bi ñuy gisee firawna noonu gis nanu ni yàlla fase woon yéene àtte firawna ak waa misira ak musiba yu mag yàlla ci njubteem dogaloon na delloo leen coono bi ñu tegoon bànni israel diirub ñeenti téeméeri at te it jaare la ko ci kéemaan yi yàlla fasoon yéene def jaare ko ci loxoy musa yàlla bëggoon na jollil ndamam ak kàttanam ngir won waa misra ak waa àddina sëpp ne yàlla mi waxoon ak ibrahima isaaxa ak yanqoba ak musa mooy yàlla aji dund ju dëggu ci yàlla aji yërmande la te bëggul kenn sànku waaye ñépp réccu te xam dëgg gi loolo taxoon mu fas yéene woone kéemaan yuy firndeel kàddu gi mu dénk musa ngir ñépp mën a xam ci lu wóor yàlla mi doon wax jaare la ko ci musa mooy jenn yàlla ji am kepp war nanu fàttaliku ne amoon na ci misra ay téeméeri xërëm yu waa misra daan teg ay yàlla wante yàlla dafa bëgg ñu xam ne jenn yàlla képp moo am te it yàlla dafa bëgg ñépp xam ne yàlla ju wóor ji mooy yàlla mi fasoon kóllëreem ak ibrahima ak isaaxa ak yankoba digleen ne ci seen askan la ràmmukat bi di musalkatu àddina si wara wàcce yàlla dafa bëgg ñépp xam xibaar bu baax bi jëm ci musalkatu bàkkaarkat yi ngir képp ku ko gëm mën a xam kan moo yàlla ci dëgg-dëgg te am diggante bu sell ak moom ba faaw waaye firawna moom faalewul woon xam yàlla ju wóor ji looloo taxoon bi yàlla dee fexe wax ak firawna jaare ko ci ay yonentam musa ak aarona firawna dafa leen tontu naan kan mooy aji sax ji ba may dégg waxam di bàyyi israel xamuma aji sax ji te it duma bàyyi israel mu dem li firawna waxoon dëgg la moom xamul woon aji sax ji xamul woon yàlla ji fasoon kóllëreem ak ibrahima isaaxa ak yankoba firawna amoon na diine wante amul woon diggante ak yàlla moom ci boppam ubbilul xolam dëgg gi jóge ci jenn yàlla ji am kepp looloo taxoon firawna faalewul kàddu gi ko yàlla jottali jaare la ko ci musa ak aarona ba tey am na ci àddina si nit ñu bare ñuy aw ci tànki firawna ci li ñuy bañ a dégg waxu yàlla aji sax ji dañuy wax ci mbirum yàlla waaye faalewuñu kàddug aji sax ji loolu moo tax xamuñu yàlla am na luñu xam ci mbirum yàlla waaye xamuñu yàlla moom ci boppam am nañu seen diine ji maam ya nekkoon waaye amuñu diggante bu wér ak yàlla aji dund ji yow nag ndax xam nga aji sax ji ci dëgg-dëgg ndax xam nga bu baax li mu wax jaarale ko ci ay yonentam ndax mës nga gëstu ci mbind yonent yàlla yi ndax xam nga bu baax yàlla aji sax ji ndax bëgg nga ko ak sa xol bépp ndax bëgg nga koo déggal wala boog danga mel ni firawna di topp rek say diinay maam te bañ a nangu kàddu dëgg gi jóge ci yàlla aji sax ji ah mbokk yi bu kenn ci nun mel ni firawna mi bañoon na déglu te gëm kàddu yàlla aji sax ji ndaxte mbind mi nee na mbokk yi wattu leen ba kenn ci yéen bañ a am xol bu bon te gëmadi bay dëddu yàlla jiy dund bu ngeen déggee tey jii baatub yàlla bi bu leen dëgër bopp ni firawna mi newoon ne kan mooy aji sax ji ba may dégg waxam nu ngi leen di gërëm ci déglu bi bu soobee yàlla ci njàng mi di ñëw dina nu jëm kanam ba gis ni yàlla wàccee ci kaw firawna ak waa misira fukki musiba ngir ñu mën a xam bu wóor kan mooy borom bi su fekkee ne am ngeen laaj ci lu nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis kon ba beneen yoon yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci kàddug aji sax ji naan bu ngeen déggee tey jii baatub yàlla bi bu leen dëgër bopp